asalaamaaleykum commune Tivaouane Peulh Niaga waa collectif aar suñu moomeel ñu ngi leen di nuyu gën ngeen noo dégg nag mais boobu léegi nag tekkiwul ni dañoo croiser suñu bara toog ñi ngi woon ci liggéey bi ba léegi ndax combat bi moo laaj lu ni mel dafa laaj côté boo xam ne côté administratif la ñu ngi ci woon continuer suñu démarche ba léegi euh, tey nag dañoo jëloon décision waxtaan ak askanu Tivaouane Peulh Niaga yëpp benn bi mooy le maire Papis Diop génnoon na ay jamono am lu ñu waxaloon ah, maanaam mën nañ koo tuddee sax tontu jëmale ko ci collectif bi loolu dinañ ci àddu bu soobee yàlla beneen bi tamit mooy actualité bi nga xam ne mu ngi ci commune bi booba léegi ah, mën nañ cee tudd mbiru lycée bu Tivaouane Peulh fan la toll mën nañ cee tudd mbiru état civil Tivaouane Peulh ak liñ ci dégg ci information ak fi ñu koy déplacé dina ci bokk man nañ cee tudd tamit li nga xam ne mooy mbiru pôle urbain bu Lac ak mbiru Lac ci boppam muy ay tem ya nga xam ni ay thèmes d'actualité la au-delà de combat bi nga xam ni mooy le combat sur le découpage bi nga xam ni collectif bi ñu ngi ci taxaw boobu léegi yeneen thèmes yooyu ñu fi lim incha allah rabbi tey euh, dañ cee bëgg addu ak suñu porte-parole du jour boo ko nekk ci tey ki ma toogal nii moom mooy Assane Badiane dina si àddu euh, dina si bokk également Baye Diop dina si jël kàddu et fi ñuy tëjee tamit dañuy jox la coordinateur soog moom tamit mu àddu ci ñetti tamit yooyu incha allah tey lañu bëgg waxtaan ak askanu commune Tivaouane Peulh Niaga ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu wér. asalaamaaleykum euh, maa ngi tudd Assane Badiane di porte parole du jour bokk ci pôle communication bu aar suñu moomeel. di wax ni que aar suñu moomeel comme ni ñu ko xamee ni ko sama naataango bi waxee léegi nii dafa doon aar dafa doon kuréel boo xamante ni li ko tax a jug mooy lépp li nga xamante ni ñoŋal na askanu Tivaouane Peulh waaye ñoŋal na tamit li nga xamante ni mooy commune Tivaouane Peulh ñu nekk ci boobu ba léegi naam nag toogaay bi yàgg na waaye ñi ngi doon liggéey ci suuf ca lañ doon liggéey nag tey dañoo ñëw pour tontu kii nga xamante ni mooy Pape Diop ci sortie bi nga xamante ne def na ko fi. nañu décret am na benn ne ñu ñun la ñuy wax xamuñu ko amul fenn foo xamante ni fa lañ ko teg ñu ñëw tey ne ko Papis Diop lii ñu la waxoon démb moom la ñuy doggaliwaat tey ne la carrément am na te am na fuñ ko teg firndeel bi mooy ñun de yor nañ suñu décret décret baa ngi nii leer na nañ boo ko xoolee da ngay gis 2021 688 bi nga xamante ni moom mooy session bi ñu naan Kër Massar la ñu def département ñu wane ko nii yow ñëpp gis ko askanu Tivaouane Peulh yëpp gis ko xam ne ñun de ca la ñuy wax yëpp suñu décret ngi nii ñun moom lañu yor di ko woo nag moom it mu andi firndeel ci lii nga xamante ni moom nee na décret la te gisuñu beneen décret bu dul décret bii bu dee am na beneen a ah, ngelawaay nañu ko génneel woon ñu ko ñun ñu gis ko yaakaar naa ne wax ji foofu la jamono ji tollatuñu ci naan am na wala amut. nañu wone ku ci nekk ci décret bi nga yor na nga wone gis ñëpp gis ni que carrément décret bi mi ngi nii bu ma jógee ci loolu naam damay gën a xuusaat ci lii nga xamante ni moom la ñuy wax ci découpage bi ndax tey am na foo xamante ne bu ñu fa tolloo danañ consulter lii nga xamante ne moom mooy ay acte trois de la décentralisation ñu wax ci lu leer nañ bu ma ciy jël sax duma ci jël lépp mais damay jël pàcc bi nga xamante ni moo gën a am importance ci commune Tivaouane Peulh wala boog ci ci ci mbirum découpage ci commune donc dafa am article boo xamante ni surtout bu may jël article 76 bi nga xamante ni dafa ne pour transférer le chef lieu d'une commune en mode euh, lié ou fusionner plusieurs communes lam ci wax dafa leer mu ne il faut faudra impérativement ki nga xamante ni moo représenter état mu def li ñu naan enquête ci portion bi nga xamante ne dañ ko war a génnee ci commune bi yóbbu ko ci beneen commune bu dee am na sous préfet war nañu mën a jox lii nga xamante ne moom mooy procès verbal bi bu ñu paree danañ ne conseil municipal bi réunir na joxe seen avis waa ngalawaay monsieur le maire ñi ngi lay laaj nga génneel ñu PV bi nga xamante ni moom moo wax loolu ñu xam ni carrément kat lii ngay wax ne découpage am na ñu génnee ko xam ni carrément découpage am na ñun de boo ñu ko tegalee ci table bi dana gëstuwaat waaye tamit danañ dellu si ne la ah la nga wax de am na la nga wax am na mais jamono jii ba tey ñi ñuy wax gisuñu ko monsieur le maire problème bi bari na ci euh, ci Tivaouane pël ñàgg commune bi la nga fiy def lépp da nga ko tëj te tëj boobu nga tëj daanaka ñu ci bëri askan bi ci boppam bi nga xamante ni ñoo la fal xamuñu effectivement sa gestion sax ni muy doxe tey ñi ngi xëy ñu ne ñu état civil bi dañ ko déplacé. li tax ñu déplacé ko nag moom lañ lay wax njort nañ ni fee nga xamante ni moom moo moom la nekkoon dafa yàqu wala soit day waaj daanu te jéemoo xool naka nga koy ta naka nga koy yëkkatee beneen bi mooy fa nga ko yóbbu lañ lañ fa gis mooy kër gi de kaka moom adjoint maire la bu dee nag danga koy fay par location kon dis-toi que carrément conflit d'intérêt am na fa yooyu yëpp mu doon ay problème yoo xamante ni mi ngi ci biir askan bi ñi ngi koy dund taxaw tey di la ko wax am na leneen loo xamante ne waxoon nga ko fi te gisuñu ko mooy li nga xamante ne mooy quatre axes yi nga xamante ne dañ ko waroon defar ci Tivaouane Peulh <coughs> te gisaguñu quatre axes yooyu nga xamante ni waxoon nga ñu ko ci prolongement tali bi nga xamante ni moom moo jugee ci pharmacie ba jëm Namora jugee Namora dem Sokabek moom mooy deuxième axe bi troisième axe bi nga ne ñu ñàgg la jëm quatrième axe bi da nga ñu ne Tivaouane Peulh moom mooy dem ba euh, ñàkku rab loolu lépp gisaguñu te da ñu ne woon ni financement bi am na donc monsieur le maire voilà des problèmes yi nga xamante ni am na ci biir commune bi ñun de aar suñu moomeel la dara yëkkatiwuñu dara intéressé wuñu lu dul lii nga xamante ni moom mooy ñoŋal commune bi donc sur ce ñi ngi lay woo nga taxaw wax ci nga taxaw génnee ci ay réponses ci li nga xamante ni ñi ngi lay laaj collectif bi de lañ lay laaj. bari na bariwul décret bi nga xamante ni nee nga am na décret boobu won ñu ko boobu benn la ñaar mooy lii nga xamante ni moom mooy procès verbaux yi nga xamante ni am na ci lii nga xamante ni mooy acte trois de la décentralisation tam wax ko mu leer nañ ñun de tey moom lañ lay laaj nga génneel ñu ko teg te askanu Tivaouane Peulh yépp lañ koy wax ne leen ñoom ñëpp nañu dégg lii ñuy wax te di laaj monsieur le maire. mu jox ñu lii nga xamante ni moom lañ koy laaj yaakaar naa ni wax ji mi ngi noonu euh, nañ ko déggee noonu taxawuñu nag pour jàmmaarloo ak moom ci politique waaye dañoo taxaw pour aar suñu moomeel beneen ba ma ciy teg mooy <coughs> monsieur le maire de Kër Massar noor ñi ngi lay waat parce que nee nañ la deal politique am na ci yow ak suñu maire mais ba léegi nii génnoo ci waxoo ci. ba léegi nii jox nga ñu ñetti yoon rendez-vous te munoo koo assumer donc li lay wax mooy la ngay mbëbët dégg nañ ko fee nga xamante ne mooy chef de village ba fa ne chef de quartier ba fa ne la ngay mbëbët foofu dégg nañ ko dañ ne nga téye sa tànk te yem ca biir commune bàyyi ñu suñu commune ñun ñu gérer ko ak suñu maire loolu daal lañ am pour wax ci askan bi ñëpp nañ ko dégg te xam ne am na lu ñuy raam-raamee di ko mbëbët moom ak Papis Diop waaye na leer lépp luñ fi def nag xam nañ ko danañu ne nag fan ngeen jëlee information waaye duñ leen ko wax waaye ñun de lépp la nga xamante ne yéen a ngi koy mbëbët xam nañ ko te jàpp leen ni que carrément duñ leen ko bàyyi ak ñoom danañ ko jàmbaarloog ñoom ba mu sëkk ne serait-ce que lépp li nga xamante ne ñu delloo ñu ko nañu ko delloo waaye ngelawaay monsieur le maire nee nga carrément légaliste nga waaye ñu ngi lay woo ci lii nag amaana di ñu leer nañ <coughs> amaana di nga andi ay firndeel yu leer nañ ci lii nga xamante ne teg nañ ko ñun ci taabal bi dala ca xaar nag. yaakaar naa loolu lañ amoon pour wax wasalaam. asalaamaaleykum waa euh, commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab maa ngi tudd bàyyi Diop nekk ci collectif aar sunu moomeel euh, di nuyu ñi nga xamante ne si ñoo dëkk ci commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab yëpp di leen siyaara leen wax ne aar sunu moomeel soo gisee ñu ñu gëj a ñëw daamoon ay information yoo xamante ne dañ ko bëggoon jëli. ñëw teg ko ci taawal bi leeral ko ñi nga xamante ne si ñoo dëkk ci commune Tivaouane Peulh ñàgg ñàkkuro parce que loolu da am solo ndax nit même bu fekkante ne si gëj nga kaa gis toogul croiser les bras teewul mu ngi doon def liggéeyam liggéey boobu nag tey moom lañ indi ci taawal bi nii pour jéem ko leeral ñi nga xamante ne si tey ji ñoo nekk ci commune Tivaouane Peulh ñàgg ñàkkurop bon li ñuy njëkkee mooy euh, ci wàllum euh, li nga xamante ne si mooy foyer des jeunes bi xamante ne moo nekk ci ci mur ci naar bi ndax loolu yëpp instant yi dañ ko délibéré woon ñu jëloon ko defaat li nga xamante ne si tey mooy brigade gendarmerie ak ak ak li nga xam ne mooy lycée bi yooyu yëpp ñu ngi fa nekkoon fi nga xamante ne si ñu daggoon ko tegoon ko ci miiru naar bi ne woon loolu ay projet la yoo xamante ne si amaana bu fekkante ne si élection jàll na dañ ko ci dañ koy commencé liggéey bi mais jusqu'à présent gisuñu dara te boobu ba léegi nii ñi nga espace boobu ñu nga xamante ne si dagoon nañ ko pour jéem ko créer def ko li nga xam ne mooy brigade foyer des jeunes ak ak lycée bi foofu léegi nañ ne chinois yi ñëw nañ ba mujj gi léegi dañ ko mujjee occupé defaat leneen loo xamante ne si ñun xalaatuñ ko fa woon sax kon léegi ñun digg yooyu nga xamante ne si Papis diggoon nañu ko ñun loolu lañ ko bëgg laaj digg yooyu fan la toll buñ jógee foofu nañ dem fi nga xamante ne si tey ji mooy lu mel ni comme tey ji suñu armée yi armée yi tamit euh, waxoon na ne bu jógee fii dina jëm am na tool bu mu dendal dina ko yokk tool boobu lay jël dugal ko si bu ko defante ne si waxtaanoon na ak borom ba pare ci li mu wax moom moom Papis Diop moo wax ne moom waxoon na ko ne pour que ñu jéem a yokk armée yi moment bi nii dañoo gis ne fi mu nekk nii Tivaouane Peulh xat na xat goo xamante ne si daanaka boo xoolee alentour bi yëpp ci benn armée la ñuy suul Soka Bek Namoura Apix ak yeneen alentour ñëpp boo xoolee fii lañ wudul ñàkkurab ak ñàgg ñooñu donc mais ñi wër Tivaouane Peulh ñëpp fii la ñuy suulee donc loolu il faut que tamit Papis Diop ñëw indil ñu si leeral Pape Diop dégg yi nga xamante ne si tey ji duggoon na ko fii ci Tivaouane Peulh boobu ba léegi jusqu'à présent ñun gis ñu si dara kon collectif bi tey bu jógee tey ñëw bugg leer leerlal population bi nga xamante ne si ñoo nekk fii ci Tivaouane Peulh yoon la te dafa jot te moment bi ñu toll nii moment la boo xamante ne si dañoo war a jóg jàmmaarloo ngir jéem a aar li nga xamante ne si mooy sunu moomeel sunu moomeel nag fii la mooy commune Tivaouane Peulh ñàgg naa ne lii ndaw boo xamante ne si mu ngi deewoo ci commune bi sax daa war a wun a ñëw xaar si tànk ndax lii nekkul intérêt personnel intérêt général la suñu yaay yi ñu ngi si suñu papa yi ñu ngi fi kenn ku nekk yaa ngi fi ndax tey jii Tivaouane Peulh toll nañ foo xamante ni instant yi nii kenn mënatul a lëndëmal kenn kenn mënatul a wax nit ki loo xamante ne ay wax naka saxa nang la moom mi nga xamante ne si moom mooy mair gàddu woon loolu yëpp ci élection yi ne dina ko def jusqu'à gis gisuñu dara kon jot na tey ñun tam ñu ñëw toog laaj ko ne ko yow li ñu la ak li ñu digoon fan ko ci toll war nañ si war a mun a tontu mais jusqu'à présent si dara dem nañ ba problème boo xamante ay affaire de découpage ak yooyu yëpp ñu ngi koy jéem a dox moom daa waroon mun a ñëw ñëw bokk ci li nga xamante ne si mooy combat bi mais maire boo xamante ne loo ko laaj mu ne lii loo laaj mu ne laa mais loolu noonu tamit euh, jot na tamit ñun population bi suñu jëm bopp jeunesse bi ñu ñëw manko doon benn jéem a joxante loxo gëm suñu bopp xam fi ñuy teg suñu tànk ndax lii raam ci ñàgg la jëm te bu fa yàggee kër lay doon Tivaouane Peulh nag Tivaouane Peulh ñëpp la séeréer baa ngi fi njaago mandinka saraxule bambara ñëpp ñu ngi fii kon ñun suñu jëm bopp amul kenn koo xamante ne si ak koo munti doon waroo mun a ñëw ñu boot bokk porté combat bi nga xamante ne si mooy commune Tivaouane Peulh ñàgg ñàkkorop vraiment lii la amoon ci loo xamante ne si dama leen ko doon leeral di ko leeral moom mi nga xamante ne si mooy monsieur le maire moom mi nga xamante ne moo fi taxawoon diggaate ne dinaa def li dinaa def li loolu lañ bëgg fi mu nekk ni nga wax ñu fan nga ci toll loolu lañ bëgg nga wax ñu tay ji ak nan nga ci bëgg a commencé ba ñu mun a xam beneen cadre bi nag duñ la si xuus de toro parce que yow yaa ñëw diggee tam ne léegi mu commencé projet la lu tolloog 300 jeunes nañ ci liggéey loolu yëpp ñu ngi toog di xaar Tivaouane Peulh nag ñu ngi nii instant yi Tivaouane Peulh la boo xamante ne si léegi kenn dootu ko partagé te Tivaouane Peulh du gâteau wallaay du gâteau kii ñëw coppat fi kii coppat déedéet duñ ko nangu Tivaouane Peulh léegi xoolal instant yi amatul cof ñokkal yi cof toog la lu leer lañ lay wax yow monsieur le maire nag la ñuy jox message boobu direct nga koy dégg Papi Diop dégg nga loolu la ñuy wax waa collectif nag aar sunu moomeel ñoo la ñoo envoyé message boobu pour nga xam ko dañ lay xamal ne commune bi toll nañ foo xamante ne si ñun lu ñu yokk lu ñuy wër mais wutuñu lu ñu wàññil comprendre ëllëg nag tamit beneen maire fi ñëw tamit na xam ne rek da koy teg ci yoon munoo ko dinañ jàmmarloo ak yow ak koo munti doon nag vraiment loolu moo nekkoon kàddu di di jaajëfal sama gars yi di nuyu ñi nga xamante ne si ñoo nekk ci presse bi di la nuyu yéen ñëpp sama naataangoo yi di bëggee gars yi kontaan nañ asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw salaamaaleykum euh, commune Tivaouane Peulh Niaga donc ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay donc di nuyu waa Tivaouane di nuyu waa Niaga di nuyu waa Niakrop di nuyu waa Bonobo donc euh, comme ni ñu ko waxee rek donc lu tax jamono ji ñu ni nañuy nuyeewee noonu parce que dañoo gis que ni à chaque fois dañuy gis ñenn kilifa taxaw naan euh, Tivaouane Peulh rek boo am genre problème yéenee nii te comme nañu wax rek ñun collectif aar suñu moomeel suñu premier objectif mooy fexe ba retrouver eh, la famille communale bi nga xamante ni moom la gars yi perdoon parce que dañoo fexewoon ba installé benn division bi nga xamante waa ñàgg dañ naan waa bënn boo xulaal même chose alors que loolu mënul jëmale commune bi kanam mu tax da siy baax ñu fàttali leen que ne ñun ñëpp ñoo bokk commune bi ñun ñëpp ñoo bokk lu ñu bëgg mooy développement moo tax ñu ngi nuyu ñëpp fépp fu waay nekk ci commune bi rek fekk nañ la fa jox la loxo donc euh, di commencer ci li nga xamante ni moom mooy ci Lac comme ni ko gars yi waxee eh, gis nañ euh, suñu maire li nga xamante ni moom la accepté woon parce que comme la ñuy wax souvent rek dara mënul xew ci commune te maire mënul joxe avalam mënul nekk tey état lu mu mënti def lu mu rëy rëy rëy ci commune ak privilège bu mu mënti am dina yëgal dina yëgal maire bi donc moom moo accepté woon à ce que ñu dajale ndoxu adduna bi yëpp indi ko fii ci commune bi ba mu accepté loolu ñu dem ba benn instant gis ni lag bi instant bi ñu ko fa dem dangay jàpp ni léegi dex la ndax lan parce que dafa naana naana naan ba fi mu ne nii à la fin euh, village yi fa nekkoon sax ak activité touristique yi fa ndax yëpp dafa mujj arrêté loolu lépp lan moo ñu ko indee mooy cuune bi nga xamante ne suñu maire cuune na ko ba accepté ndoxu Sénégal gi yëpp ñu war ko mën a tuur ca lag bi alors que sans pour autant ñu xam ne que ni Lac Rose à part Île de Gorée mooy le site le plus visité au si Sénégal est-ce que ñun mu nekk suñu biir commune to commune daan Palñaag est-ce que ñun war nañ mën a nangu suñu maire tay la lag boobu noonu ñu fay indi ndoxu inondation yi yaakaar naa ne loolu cuune moo ko fi indi tey jii nii euh, artisanat amatul amatul amatul ci lag ba mu xorom moom waxaatal waxaaloo ñu ko parce que keroog bañ fay jógee ñu ngi naan ñun benn jalu xorom moo fa des parce que fi mu ne nii mënut ñoo génnee xorom dem na benn instant sax fay dem dañuy commencé di diig parce que lag bi du ma naan dafa bëri léegi loolu yëpp kan moo ñu ko yóbbee suñu maire moo ñu ko yóbbee fii dañ fi dañ fi daan exporté xorom ñaata camion moo fa daan taxaw par jour mënatuñoo am xorom euh, ñi fa nekkoon doon ci liggéey mënatuñoo liggéey activité touristique mënatu faa am kon léegi lan moo des sa lag ba te loolu ku ñu ko yóbbee mooy suñu maire parce que moom moo accepté à ce que état du indi fii ndoxu inondation yi juste pour régler des problèmes mais ak lu ñu mën a régler régler problème mais na nga xam ni loolu patrimoine en dehors du Sénégal sax patrimoine la patrimoine international la kon dafa nekkoon li nga xam ne dañ ko waroon préserver moo taxoon ñun dañoo doon dañ ñu ngi doon def ay effort pour sax saisir UNESCO parce que loolu patrimoine patrimoine UNESCO la Lac Rose donc loolu askanu Tivaouane Peulh nañ ci nañ ci bàyyi xel xam ni coono yooyu yëpp bu ci amee tey jii nii euh, fa nekkoon ñàkk seen liggéey xorom mënu dafaa am gaal bu dem boo solee boo moytul commencé diig loolu lépp bu amee suñu maire moo ñu ko yóbbee suñu maire moom moo bëggul commune bi deuxième bi mooy li nga xamante ni mooy pôle bu Lac Rose pôle urbain bu Lac Rose bi ñëpp gis nañ li nga xamante ni moom moo fa nekk parce que lu tiital nit ñi mooy ñoom dañ leen doon gëmloo que ne à ce que état bu bu la du laal seen kër yi dara mais ki nga xamante ne yaa ngi ñëw bënn ba ni da ngay recenser kër yi recenser tool yi ba pare ni leen à part ça doo def leneen mais tool lan moo fa nekk kon ça veut dire que boo leen recensé ça veut dire que yaa ngi waajal seen jug te ci biir ci biir décret bi dafa wax lu leer nañi bu fekkee ni état bi dafa soxla ñoom dañuy cédé gratuitement kon képp ku leen nax te loolu yëpp maire bi amu ci benn taxawaay bi nga xamante am na ko ci au moins où mi ngi toog à chaque fois lu ñëw mu ni a ci dara mais Pape Diop nañu la la fin lan la la la nag lenn rek la ñuy wax mooy comme lu ñuy wax souvent que ni euh, bukki lëndëm moo ko jig parce que fu leeraay bi génnee day suul ay commune am ñoom lu ñuy def yëpp xam nañ ko et que lu leen prévenir mooy commune Tivaouane Peulh encore une fois comme ni ko gars yi waxee sànq nekkatul dootu ñu nangu kenn à ce que mu jóge fële ci àll ba di dagg-daggee tey waxuma la nag def li nga xam ni lu la neex Papis Diop ñu ngi koy mee en di ko xamal que lépp li nga xamante ni mu ngi koy nasa di nocc ci commune bi gars yi xam nañ ko gis nga ñu ngi gis ñu ngi naan woowoon nañ ko dig par ak benn problème yi nga xam ne war na ko régler mais Malcom comme Tivaouane Peulh Tivaouane Peulh deux mille deux mille ba léegi ci foncier la nekk ci bul ci buli mu foncier la nekk mais au moins wu ñu ngi naan à chaque fois Papis nekku ci responsable mais kon kon mooy responsable bu fekkee njiit bi nekku responsable kan moo ci responsable ku ñu jir ñun ñëpp moom bu ci ba amul benn responsabilité nga yaakaar ne ku jigee ci àll ba dina ñëw di bu ñu jëlee le cas de Cypres mais ku la fii commune bi fi dugal maire am na ci fi mën na la fi génn mën na la mu loolu def il a renégocié les yi nga xamante ni moom la maire bi amoon ak ak ko ça veut dire que mu trouvé sur place mën na ko négocier mais ñun dañoo am benn maire bu nga xam ne man ñun dañoo jàpp ne dara te foo et que pour wan que xamul dara collectif yi fii ku fi gën a boo ko booleen plateau man mi ci gën a ndaw boo ma booleen plateau ci Pape Diop ñu wan ni ko xamoo dara kon na bàyyi affaire de intellectuel bu muy jaay nit ñi gënu fee doon intellectuel fenn kenn te affaire de mairie c'est pas une question d'intellectuel mais c'est une question de patriotisme et de nationalisme gis nga dëkk soo ko bëggul mënoo faa def dara te Pape Diop loolu moo ko dal gis nga dafa bëggul commune moo tax mënu fee def dara mais nekkul affaire de intellectuel parce que tamit gënul doon intellectuel fii kenn gis nga ak intelligence bokkul mës naa ko wax si bureau ni ko connaissance ak intelligence bokkul kon na bàyyi affaire de intellectuel ay légaliste la mais légaliste la comme que nee na moom légaliste la te que au moment où nee na commune Tivaouane Peulh ñàgg parti yi nga xamante ne moom la ñu wax sànq toolu Abdoulaye Wade ba croisement APIX léegi Kër Massar la bokk waaye waay waay légaliste la légaliste la te moom moom moo gagné foofu noonu ci élection la yi kon dans ce cas nañ tëggaat élection yi te xam ne élection yi jàll fraude la nee na la bu fekkee ni Kër Massar Nord léegi parti yooyu noonu ci foofu la bokk te moom nee na la rek léegi ñun mën nañ naw ni Kër Massar léegi parti yooyu Kër Massar noonu la bokk mais ñu tëggaat élection yi te xam ni élection yi jàll fraude la parce que dañoo fraude dañoo a kon donc nañ bañ a fontoo nit ñi nañ bañ a wax nit ñi ay waxu caaxaan gis nga Malcolm ak yéen journalistes yi yëpp yàlla ñu yàlla musal si njiit bi nga xamante ni day féewale ay nit te ñun genre njiit googu lañ am parce que njiit bu demee bay taxaw naan ay li problème yi fii la am yamu amul fee gis nga njiit waroo yor jikkoy jigéen ngeen jégal ma si kàddu gi gis nga damay wax souvent que ni première sàcc bi nga xamante moom mooy nekk ci commune Tivaouane Peulh bi dama la nit mënul jógee ci àll ba ñëw ci commune Tivaouane Peulh Niaga jël fi suufi suuf te amul autorisation maire bi wala maire bi jàppale wu ko si et que maire boobu noonu bu fekkee tey jii nii moom mooy encadré sàcc yooyu noonu nga xam ne ñoom ñoo ci àll ba ñëw di jël suñu suuf di dagg du kon loolu lañ amoon li nga xamante ni mën nañ ko ko wax à ce que mu dégg ko def ko ci noppam moo war moom mooy mairie Kër Massar Nord ñu xam ne bu baax a baax lépp lu ñuy waajal par rapport ak zone boobu noonu xam nañ ko déedéet mais Adama Sarr ne leen day waajal takkale drapeau euh, patine ñu ngi koy xaar ak yeneen yëpp lu mu fay waajal def gis nga mois bi nii nii du ko fayee ko jiite kër Daaru Salaam yow boo xam loolu noonu ak ñooñu ñu koy siy jàppale yëpp ba ñu si ba dem IGE ba ñu si ba dem conseil constitutionnel à ce que ñu revoir comme la ñu wax bu fekkee ni côté boobu dañ Kër Massar loolu nekk mais nañ dëgg ci élection yi te xam ne yooyu noonu fraude la ba ñuy si encore une ba taxawaayu bi nga xamante ni taxawaayu violence lay doon parce que duñ ko si bañ kon donc ñoom ñaar nañ xam bu baax fu ñuy teg suñu tànk aussi Pape Diop encore une fois mu xam bu baax que ni commune Tivaouane Peulh ñàkk bañ koy fal dafa am li nga xamante ni moom la leen digoon dafa am ay wax yoo xam ne moom la waxoon euh, yi nga xam ne moom lañ ci waroon def ñu ngi doon wax ci délibération yi nga xamante ni moom moo am ci commune Tivaouane Peulh-Niaga délibéré nañ ci état civil délibéré nañ fi cimetière délibéré nañ ci foyer des jeunes délibéré fi lycée moderne andi délibération yooyu yëpp délibéré nañ ci poste de police andi gendarmerie andi délibération yooyu yëpp commune Tivaouane Peulh-Niaga amul dara li nga xamante ne nañ fi suivre et au moment où y a des gens yi ngi nekk ci côté lu mu wax ñu et que partage yooyu ñuy def ay papis di leeral naan ay eh, dañ ma wowoon à ce que ma ñëw leeral parce que man maay commune bi yooyu su ko defoon ci commune bi moo nekk lu gën a am importance que génn di wax wax yoo xam te ne naan musul sàcc mais pourtant moom mooy jàppale sàcc nañ ko génnee si sàcc yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki commune Tivaouane Peulh-Niague la collectif pour la défense des intérêts de la commune de Tivaouane Peulh-Niague Aar Sunu Moomeel euh, yëkkati woon tey di leen ko indil euh, kàddu yi fi jóg nag ñëpp ñu ñoo ko déggandoo ca poñ ñin fi yëkkat tamit macha allah bëri na côté bu nekk nag mën nañ ko faa xeexee ah li suñ kanam nag lépp bépp moyen ba nga xam ne mën nañ koo utiliser ba man a reprendre li nga xam ne Tivaouane moo ko moom comme ni ñuy woowee suñu bopp aar suñu moomeel dañ ko def muy ci politique muy également des voies juridiques parce que dëkk yoon lañ nekk Pabis nekkul au-dessus de la loi lépp délibération yi fi def ah, découpage bi fi am ak dégg ngeen ni ko soog waxee sànq ci élection yi fi jub yi fi yi fi génn loolu lépp dañ ko bëgg ñu leeral ko ndax lii ñu jégee tey ñun collectif bi duñ ci mës a tegg suñu tànk te xam nañ baax fi ñuy teg suñu tànk ah beneen bi li may wax mooy combat bi ñuy mëne ñun collectif aar suñu moomeel ah yaakaar naa ne boo jógee di xeexal sa dëkk du diine ji du parti politique bi du mouvement citoyen bi point yi ñu xeex ñëpp yaakaar naa ñëpp ñoo ci retrouvé wu donc du benn mbir bi nga xam ni moom moo ñu man a xaajale fii parti politique boole wuñ de diine boole wuñ de ethnie tamit boole wuñu intérêt temple moo ñu tax a jóg wax ji nag ñu ngi koy dégg fu nekk mais nañu rafetal rek te xam ni temple la ñuy xeexal lii bu ñëwaatee dëkk bi Papis Diop nga bokk moom parti nga bañ a bokkoo moom parti nga bokkoo moom mouvement nga bañ a bokkoo moom mouvement nga bokkoo moom xeet nga bañ a bokkoo moom xeet bu jëlee commune Tivaouane Peulh la ci defaree te yaakaar naa bilan lay doon donc ñun intérêt Tivaouane Peulh moo ñu tax a jóg ah di woote unité commune Tivaouane Peulh ñàgg te loolu la musa doon te kenn du ko jaxase ku ko jéem a jaxase tamit yow rek yaa ci des di nuy ñëpp di siyaar commune Tivaouane Peulh ñàgg yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah